mais bu ñëwee ci actualité comme ni la ko waxee léegi ngay avancé crochet bi mooy semaine bi weesu tàng na lool ci ay manifestation ba ay nit ñàkk ci seen ay bakkan ay nit blessé ci donc en tant que porte de voix gis nañ aussi ngeen def sensibilisation wax ci lan ngay waxaat en à part bi ngeen def ci loolu noonu loo xam ne moo gën a précis ak Sénégal fan lañ mën a jëm pour di éviter loolu dootu fi amaat non man moom damay damay côté boobu damay damay pour man résumé naa lu bëri ci son bi ma génnee ci ci ci ci ci jamono yooyu man bokk naa aussi tamit ci artistes yi njëkk génnee mën naa ne sax maa njëkk génnee son peut-être yenn visibilité yi des fois nit ñi duñ duñu xam artiste bi kii mais man naturellement dama engagé bañ na ko ba ci samay thème sax dama engagé léegi nag bu man du ma gisee lu dul yoon muy ci

nous artistes on a le droit ñu jog du droit sax pour man devoir la da ngay jog nga nga nga dénoncer lolu noonu pour yé askan parce que tamit way dafa war wara am jëriñ mëno ñëw fi di way lu la neex bu dëkk bi soxla artiste duñ la gis da ngay da ngay génn nga wax. côté pour man lolu la de passage mais jaalé ñi nga xamné faatu nañ ci. ñoo joxé sen vie pour pour pour pour leur pour leur patrie. Euh, ñooñu am kenn amul seen fay parce que cause noble lañ doon xeex di masawu ñi nga xam ne tamit blessé nañ ci di ñaan yàlla euh, jàmm sax Sénégal comme ni mu fi saxee woon yàlla di di di di di ñaan yàlla aussi képp ku fi nar a yee fitna yàlla jëlee la fi Sénégal njaay gi loolu mooy yàlla jàmm yàgg Sénégal